dal leen ak jàmm li ëpp ci yéenekaay ci li ñu xëy mooy mbiccoo mbaalo gi dox diggante Aminata Touré ak Idrissa Seck te ñu jaarale ko ci taskatu xabaar yi enquête ne géré xeeñ diggante Aminata Touré ak Idrissa Seck tàmbale nañ ko te kenn nëbb ko ci ñoom ñaar yéenekaay gi di ci yokku ne boo xoolee 2013 ak léegi saa bu Idrissa Seck yëkkati ay kàddu di dal ci Macky Sall Aminata Touré mooy ki doon ŋàbbu ne moo koy tontaka teg place am tey Idrissa Seck dem na fekk ji Macky Sall ne jëflanteeg moom lu jafe la muy lu yéenekaay doxalin wu wi mu ne mom la yoray won conseil économique social et environnemental kay gi di xibar ne amna yene ci yene kay yu wax nan chasse aux sorcières dafa am ci conseil économique social et environnemental waye dara amu ci buñu sukkandiko ci Li quotidien journal bi dem sax bay tuddu ay jegeñaale Idrissa Seck mi nek léegi ci bop CSE ñom Idrissa Seck ñu ci yokku ne amul benn xabar bo xamne jot nañ ko mu ci Aminata Touré di len wax ci administratif ak finance nan la yoray won kër gi di conseil économique social et environnemental jotuñ itam document bo xamantene ne nañ ci passation passation de bind ko ci anam wam waree teg ci soxna si signé ko muy ay xibaar yu jege ñaale Idrissa Seck yët Sud Quotidien moom ci lu taxaw mooy Idrissa Seck ak Oumar Sarr ñi nga xam ne dañu jóge ci opposition bi dem fekki Macky ci majorité bi yéenekaay bi di ñu wax ne ñi ëpp ci boobee majorité ñoom lu ñu gis mooy liggéey bu rafet bu ñu liggéeyoon 2019 ba am ca ndam dañu jël li ci ruusee dem saamal ko seeni adversaire Walf Quotidien moom it ci Idrissa Seck la taxaw di wax ne Idrissa Seck moy ko xamne ken mënul seppi loxom ci langue politique bi limu dem fekk Macky Sall Walf Quotidien di wax ne luñu wara jangat la fu ñen ñi naan limu yabbi won la wannaat ñeneen ñi naan dafa war askan wi ña ca des di wax naan ay jafe ko par la amone ba banque naron jaay kërëm lolo tax mu dem wuy ji Macky Sall muy ponk yu bari yo xamne mën nañ ko jang ci biir Walf Quotidien ñu genn ci politique dem ba Falémé wax ci fleuve ba fa né ak pollution bañu fa némé nemmeeku ndax loolu lu soxal ñi yewo ci Kédougou la pollution bobu ci fleuve bu Falémé nee nañ dara ko industrie yi nga xamne ñu ngi fay yëngu ci am miin sabab ba ñu yeewoo ca Kédougou am ci xol buy métti dem sax bay xamle ne dex boobu ci ay jamono lu bëri ay jën la bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di Le Quotidien ab dossier lumb la ñu teg ngir yàq dex boo xamante bokkoon na ci yu gën a am solo ci réew mi Le Soleil moom li mu xëy wone mooy mbégte mi nga xamante ne Fonds monétaire international am na ko ci réewum Sénégal Soleil di ñu xamal ne seen nit la fi yónni woon ngir ñu amal fi ab mission juróomi fan ba fukki fan benn ci weerum novembre waaye ba mission ba jeexee Fonds monétaire international dafa ne li muy wone mooy am nañu mbégte ci xëyee mooy ay médiateurs yu ñu fal te mu jar tey te ki leen fal mooy jëwriñ ji ñu dénk finance ñi mu fal mooy Habib ak Momar Ndaw ñooñu la jël yóbbu leen ca l'observatoire de la qualité des services financiers def leen fa ay médiateur bu ñu sukkandikoo ci le témoin ca observatoire boobu ba léegi fal gañu fa fal Amadou Kane ki nga xam ne moo di Banda di maire bu Patte d'Oie jaaxal na ëlëb ñu bëri ci askan wi bu ñu sukkandikoo ci le témoin